Abbas Fall di tête de liste bu Pastef ci diwaanu Ndakaaru daal nañ koy duut baaraamu tuuma gannaaw attaque bi nga xamante ni am na ci siège bu coalition sàmm sa kàddu ab communiqué la ñu nag jagleel suñu naataango yu Sénégal mu nekk nag loo xamante ne ñu ngi ciy ñaawlu li ni mel coalition sàmm sa kàddu daal nay nag dellu waat ci attaque bi nga xamante ni xew na ci guddig ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer octobre bi ñu a nekk ay leader yoo xamante ni ñu nga ci coalition boobee demoon ci ay meeting. meeting d'ouverture yoo xamante ne ñu ngi ci diwaanu Sénégal rawatina fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Ndakaaru Barthélémy Dias ak ñooñam daal di nag wàcce ci mbedd yi ànd ak ay agent de sécurité ci jamono boobu seen siège ba nekkee ci diwaanu Sacré-Cœur ay defkatu ñaawteef ñoo ko songu daal di koy nag xaañ ay xeer ba noppi daal di koy taal mu nekk nag acte boo xamante ne leader bokk ca mouvement boobee di sàmm sa kaddu ñu ngi koy ñaawlu bu a baax a baax nee nañu République la ki nga xamante ne moom mooy Abbas Fall di tête de liste bu Pastef fi nga xamante ne moom mooy ci département bu Ndakaaru Biraloon te loolu nag jàpp nañ laale na ci mbir yi ba quatre matin jotee ci la gis nag ab groupe d' yor nag li nga xamante ne moom mooy ay jaasi pistolet ak li nga xamante ne moom mooy ay cocktail molotov daal di nag songu bi les sièges def nañ fa nag ay dégâts matériels yu attaku ne nañu nag ñoom ñoo ñu nañ woto yi déroger li nga xamante ne moom mooy système d' incendie ba ñu fa def woon ay millions yi koppar la ñu fa nag yàqate bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy leader bi les coalition ne nañu nag yàlla moo def li gën sapeur pompier te la ñëw fexe nag ba daal di limiter dégâts yi waaye nag jotuta am benn blessé li nga xamante ne moo xew li nga xamante ne moo xew coalition ba dafa jàpp ne acte la yoo xamante ne wàllum vandalisme kot lañ ci nemmeeku ba tax na sax ñu ngi koy ñawlu bëgg nañu nag nguur gi daal di ci wax lu ko mooy dinañu nag fajal seen bopp nee nañu nag ñu ngay woo union nationale ak internationale ñu daal di nag addu ci li nga xamante ne moom la ñu nemmeeku foofee ci seen siège boobee ndaxte nag acte la yoo xamante ne provocation yoo xamante ne dañu koy naqarlu bu baax a baax ñu ngay woo suñu autorité ñu daal di nag régler bii les situation mu nekk nag loo xamante ne daal nañ koy naqarlu gannaaw la nga xamante ne xew na ca diwaanu Tambacounda ba ñu doon nag jagat jagate ki nga xamante ne moom mooy Bougane Gueye Dany ñu menacé leen ba noppi daal di song seen ba convoi tey ji la nag la nga xamante ne xew na ci bés bi ñu amal ay meeting d'ouverture ci diwaanu Dakar ne moom mooy ay mesures ngir nag jàmm daal di xew fii ci diwaanu Sénégal justice def li nga xamante ne moom mooy liggéeyam ñu àddu ci li nga xamante ne moom mooy élection yooyu ba tey benn jour di démb ci la ñu tàmbali li nga xamante ne moom mooy campagne bi fii ci diwaanu Sénégal ay kilifa yu bëri daal di nag def ay discours d'ouverture ñu bëri nag daal di gis ne ah, ku ci nekk sa mbooloo daal dina lay topp fi nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Dakar coalition yu bëri jug nañu bu ci mel ni Pastef sàmm sa kàddu jàmm ak ak yeneen i coalition yoo xamante ne ñu ngi dem ah, ci boobee jongante ñu ngi nag sillonné ah, Sénégal ñenn ñi di def li nga xamante ne moom mooy ay meeting ñeneen ñi di def caravane ñeneen ñi nag daamal li nga xamante ne moom mooy ay visite de proximité fexe nag ba mobiliser ay doomi aadama yu takku lool ku ci nekk nag yaa ngay def discours ngir nag convaincre askan bu Sénégal ñu jàppale la ci sa projet bi nga xamante ne fas yéene nga ko taxawal bu fekkente ne yàlla dénk na la majorité fa nga xamante ne moom mooy ci assemblée nationale sàmm sa kàddu Pastef itam ñu ngay nag yëkkati li nga xamante ne moom mooy seen i projet di teg fexe nag ba def li nga xamante ne moom mooy ay liggéey ay formation yoo xamante ne jamono jilee dañuy viser bu baax a baax li nga xamante ne moom mooy seen avenir janoog seen adversaire Amadou Ba def nag ak différence bu baax a baax ci discours bi nga xamante ni daan na koy def jamono jilee xeeb na lool liggéey bi nga xamante ne mu tax na sax bëgg na gën a nag rectifier erreur yi nga xamante ne Pastef dañu ko def dañuy yore réew mi des na bu ñu sukkandikoo ci leader politique bile ba tax na sax jamono jilee bëgg na bu ñëwee daal na nag rectifier lu bëri ci doxalinu réew mile des amours la ñu nemmeeku ci digg journaliste bi nga xamante moom mooy Madiambal Diagne ak fi nekkoon ci tur réew bu Sénégal di président Macky Sall Madiambal Diagne gannaaw ba mu génne yëkkati ay kàddu daal di koy xamle fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu RFM di rajo Futurs média moom njiit bu avenir communication ki nga xamante ne moom Ousmane Sonko kàddu yi mu yëkkati woon ci moom diggam ak président Macky Sall ne nag li tax Ousmane Sonko gagné élection yooyu moom ak ñooñam ab accord moo dox ci diggam ak ki nga xamante ne moo fi nekkoon jiitu réew bu Sénégal di président Macky Sall la ba mu desee ci élection yi dañu ko bàyyi mu dem ci li nga xamante ne moom mooy élection yi daal di koy setal taxawal li nga xamante ne moom mooy loi d'amnistie biile loolee nag ba ñu ko taxawalee ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko génn na ca kaso ba amal li nga xamante ne moom mooy campagne am jël ab candidat am daal di teg waaye nag yemu ca dafa nag fexe ba daal di koy jàppale ci wàllum koppar ak li nga xamante ne moom mooy matériel ngir Ousmane Sonko akub candidat am mën a nag waajal li nga xamante ne moom mooy élection yooyu def li nga xamante ne moom mooy campagne électorale saa si le président Macky Sall ak ñooñam génn ab communiqué weddi ki nga xamante ne moom mooy journaliste bi de di Madiambal Diagne jàpp nañ ne loolee muy wax teguwul fenn ay kàddu yoo xamante ne dara du ci dëgg jamono ji le Madiambal Diagne weddi nañu ko ba mu seet ab communiqué la daal di fësal di xam ne li ni mel nee nañu nag la mu wax dara du ci dëgg bu fekkente ne nag dafa bëgg campagne bëgg nekk candidat war nag mën a wax leneen waaye nag du sosal ki nga xamante ne moom mooy président Macky Sall mu nekk nag loo xamante ne ñu bëri dañuy laaj ndax digg journaliste bi nga xamante ne moom mooy Madiambal Diagne ak président Macky Sall dafa tàmbali nag di yàqu di ci mën a am loolee nag ab laaj la bu daal di sampu.